نكو شمس سمازي رسول آزي خير لنيزي للأولياء لولا سرين تبا واخ يرن تبي عليه الصلاة والسلام ما سو خمني بولام بوتا كي جنت فيني لك بولك جنت فيني لوتا كون لمبو كوكي نك مونو تاو فيخل خربو تدبي من خزوة البدر sunu borom feeñal ci ak kattan feeñal ci ay secret ay góor yàlla yu bëri feeñ ci biir ba xare bi euh, Muntaqa li ci yéeme xaswatul badar mm-hmm. mooy première xare bi lislaam def xare bu metti la boo xamante ni jullit buy jullit war nga cee jàng ak njàmbaar war nga cee jàng ak ngor waaye war nga cee jàng ak jom Moustapha jàmbaar la ca wone mm-hmm. wane ca ngor wane ca jom Moustapha bi muy xare Badar diggante champ de course bi ak Medina mat na ñaari téeméeri kilomètres ak juróom-benn fukk 1300 kilomètres. ñu ñu ñu ñu woor. képp koo dégg mun la lislaam gi am na lu yomb. wala yàlla am na lu yomb. laaj ko jan yàlla la. ak ci jan lislaam la ko boole. laqad xalaqna al insaana fii kabadin man yàlla maa leen bind ci coono. كُتُونَ دَنْ وَاتِكَنَ مُصْطَفَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دُوَامْ تُونَ لَمْ نَخَرَنْ يُدَمْ بُنِيَمْ تِجْمَعْ جَعْنُغَرْجِ نِعْلِ السَّلَامِ يَكْسِفِي جِسْكَ تِبِيْ سَحَابَ يَنْوَ خَمْنَتَنِ تِبْوَ تِجُوكُ بَدَرَ سَيَرْتُونَ دَفَخَرْ نَحْمَرُ نَمْ نِيسَنْتُونِ خَرْبَ يَنَتْ وَيُ بَدَرَ أَمْلَتْ نِعْمَ دَنْ أَمْلُ سَحْلُنَ دَعْ شريف tibb aw lef bëgg jàllale gone yi jooy ñu jox leen ko te leele leen ko ñoom toog di xar seen borom. bañ ne suba la badar. bañ ne suba la badar. booba lislaam riche gul nii mu riche. booba lislaam ña ca nekk amunu kattan gi nu amee kattan ñi ci am kattan am ci kopp koom bi ñuy génn makka danoo jaayante ba fa seen lépp. booba bu ñuy tudd ñu am alal Ababacar la ñuy tudd Omar. ñoom min seen ñoom min seen xare bi tab bi Moustapha alayhi salaam jot ndigalu boromam war a jàmmarloog yu noonu yàlla yi. julli ji nekk 313 personnes. Badar gi ngay dégg li muy rëy yëpp. l'islam 313 personnes la amoon. ñetti téeméer rek fukk ak ñett. yéeféer yàlla yi nekk ñetti junniy nit. léegi nag ci logique rek faralaate ca yàlla la njëkkee. gis nga boo amee doom ñun la da ngaa faral kii nee ko waaw d'accord faralaate ca yàlla la njëkkee xel nag yenn wul 313 personnes xeex ak ñetti junni nit ah mën leen gañe xel yenn wul loolu waaye Moustapha alayhi salaam la yàlla faral faralu ko léegi de faral nag fa yow ma alastu sunu borom ne alastu bi rabbikum moom yàlla la soob mu def ci ruu yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu ni balee moo mu saaka Moussa nee na raw na leen fa yow ma alas su jëbbal naa ko yaasin ci vey bi Moustapha dafa daw ba ci àll bi ba kenn gisatu ko fi mu nekk mu wéet fa cundum tàllal loxoom yi tedd yi boromam ni ko yàlla yow sama borom quantité bu néew bii nga am wala qualité bu néew bii nga am mbooloo mu néew mii nga am bu leen yéeféer yi faagaagalee lislaam dootul taxaw di ñaan sunu borom ba rangoñam dal ci dënnaam di ñaan sunu borom ba kaalaam wadd ci suuf te yàlla ni ko wa maa yantiqu anil hawa dégg na wala sawfa yu'tika rabbuka fa tarda Mustafa dégg na alam yajidka yatiman fa awa wa wajadaka dallan fa hada dégg na wa wajadaka ailan fa aghna dégg na fa amal yatima fa la taqhar wa ama saa'ila fa la tanhar waaye Mustafa rek am wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis koku nak du jokkar bi yalla diko ñaan bara ngooñam dal ci dënnam ngir ñun yalla diko neenal gañe nanu badar te bërsët jotagul sunu borom ni ko garanti na la do am defet yow da na la xexle ba yabal ay soldaat ñu xexle la tisbaru badar gogo, ko mustafa rëppeelu won l'islam ndërmeelu tisbaaru badar googu bu Moustapha amoon jël lislaam daanu ci suuf tey jii kenn du jëriñu ay sunu borom dafa renforcer ba renforcer ay ruu ndax mos ngaa yëg ni Cheikh Ibra Babul Mouridina xeex na badar danaa la ci ñëw laa bari na ci góor góor yàlla yi. Chérif Hassan Haydara. yu sat bu ay dara mii ci Louga. xexna badar ci la ilaha fasal dafa ko leer Cheikh ibrahim Babul Muridina bari na ci gor yalla ñu xex badar de akbar waye li neex ci xare bi sun borom da rof kàttan jullit yi Ababacar sadiq mo ñëk fippu na góor ñi jang jom mas nga xamni ni doomu Ababacar sadiq abdurrahman tisbaruk badar du won ab jullit yéeféer la won عبد الرحمن ابن ابو بكر الصديق تسبار بدر يفر لا ابو بكر ديك ديك مي عليه السلام بايل ما جمار لو اب سما دوم جي رنديكو با نو خامني يولا يالا يوني لا اله الا الله دومي باي علي ابي طالب يفر لا وون تي خصوه البدر نيبا ديم خيخ بدر مكه كين دسوفا ابو لهب رك مو دمول bu la laaje ku demul won badar ci yéeféer yalla yi abillah rek mo demul abu lahab badar dafa gent lu jitu badar ñukay napaje damat ko mu netali ko gisane bi mu ne ko yow de dajante ak fenn mustafa fo dajante ak mustafa ne sa bakkan du dalusi lolo waral badar demul way dafa fay ab jamam bu ko demal aboo lahab ak Abdullahi mi jur yonent bi ay doomi bàyyi lanu terewul yàlla xas na ko tabbat yada abi lahabin wa tabba ma agna an humaluhu wa ma kasaba sa yasla naaran zaata lahab xoolal jàmbaar fi Abu Bakrin Siddiq jógee ni nan ma jox jaasi ma jàkkaarloog sama doom ji rendi ko ngir yonent bi Abu Bakrin sëriñ tubaa képp ko fay moo gesuwaat ne yonent bi dammi wa ahli wa awlaad yi samay doomi bopp fiddaa un lahoo jox naa la ko hadiya abdan xadiman lahu muskaana li sanada soxlawu ci benn njukkal foofu saxaaba ya tolloon kan moo ca toll kenn tollu ca kenn rek tollu ca sëriñ Tuubaa ku ne moom moom boo tuddee yonent bi faaw ngay tudd sëriñ Tuubaa ah, waaw di tudd yonent bi te doon tudd Serigne Touba bàkkaar la. suñu borom rof na kàttan na Aliyun ci tisbaaru Badar bu yëkkatee loxoom junni nit daanu bu yëkkatee tànkam junni daanu fu mu xàcc jaas di dóor oh. mu def yoon. fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru koor sunu boroom sotle yonent bi nam ko defoon ba Abraham bëggee daaneel Kaaba ka ñu war ci seen ñay yu mag yooyu sunu borom jabal ay picc képp alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababila sunu borom dafa ni na ñëpp participer wa ndax yàlla participer wu ndax jël gu reuy ci 313 personnes ak ñetti jooni nit fofu la mustafa jaar ak ñun ci xare bu metti boobu nga xam ni létt na ñetti létt bopp bi takk jëmb yi ñu léttal ko ko nii léttal ko ko nii léttal ko nii léttal ko nii moom Moussa ca jàmbaar ja moo tax sëñ Moussa sëñ Moussa ka nee na ko yéenam yi saq ya ànd ak njañ ya far di melax oh. bëtam yam yi wëlbati di ko lamsal fa yàllaahu amul ca gaaño wi yoon amul ci gaañi ci des am ci ci nii bëgg ñëw insha allah yàllaahu suñu borom faral ko mm. xare bi takar naa seeta neex Moustapha mu jéegañe léegi nag scientifique yi nan dem ñu calculer ñetti téeméeri nit ak fukk ak ñett nan la ñu mënee gañe ñetti junni nit. Ah, waaye ku yàlla faral. ak ku mu fat ñoo am. ku mu faral nga gañe ku yàlla fat. doo ta dëbbuti ku yàlla sàng mënaanu sutura loo tëra di tëra sa tànk du feeñ. Hmm. ni la nu yàlla def ci lislaam. macha allah kon jaamu ko rek moo nu war ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni sama uridu minhum min rizqin ma uridu an yut'imun koku mo garantie sunu wërsëg. non la def ak ñun. faral mustafa ali salam mu gagné Badar la ni jare tabbi ci Cheikh ibrahim Babul Murid dina ganjar ak yoon wi. fa lañ dem waaw waaw. daj dopp gi taxoro mambulan gi. Mhm.

dañu xare badar ba takusan Seex Ibra teud ci taatu garab waw ñi nénon noon la ñi nee nañu leneen la ak lu mu ci mëna don doon Seex nga rot fété faron garab ga sayidina Aliyun jambar khaybar rëppatal fas gis ko ngir jambar gi ci bir xare gi ta xamé ko ci bir sahaba yi rëppatal fas ba tolloog Seex Ibra babul muridina laaj ko yow la kan ndax dama laa xamewul ci saxaaba yi te man Alioune kenn gënu maa doon jàmbar ci toolu Moustapha gi tisbaar gu ne Alioune génn na ci lislaam takkusaan gu ne génn na ci yonent bi alayhi salaam Cheikh Ibra tontu ko daa yëkkati poqotaanu day jor bi aj ko ca kaw mu gis ni bind aboo rijaalullaahi bàyyi góor ñee fa dem ba xëy ta moroon bi si jëb bi ma sëréeg ma déggan njaay jëgg bi xam kii ñu fasante fa collègue Cheikh Ibrahima Fall moom la tuddee Serigne Alioune Fall Mbawar bàyyi Serigne Cheikh Fall Mbawar. la ilaha waa du booy de. waaw danañ teer ci Serap Fall. waaw. mu mel ne da laaj sànq. Baye Fall yi ak ndogu yi. ak ndogu yi. waaw wala nga ko yi. waaw damay da tey damay bëgg ñu ñu ñu ñu dafay am solo dafay am solo ndax des na nag. Cheikh Ibra rek ku tedd ki Sëriñ Tuubaa wax nga ko loolu boobu da nga koy denc ci ginnaaw tuuti ndax yaa ngi fa doon bëgg a jëm sax. abdallah baay ba mustafa amina yaayam xayrul anbiya lu waay jàpp na be